Mara Sénégalais dafa am ay laaj. Ah? waaw. ne ma sa dernière date surveille daw. <laughs> faju ji mais mujj naa ko bàyyi sama dënd bi yàqu na Seydi. mais. réew espace kese la. réew espace la boo xoolee li ñor. waaw. tey jii waaw doo gis koo ci dimbali mais Ndakaaru nga yow yor vingt mille. waaw doo mën a dajale. dama tekki fi yomb na de. mu neex a tekkee la. doo dajee ku lay di booy ku lay ñaan ku lay dimbali rek ngay dajal fii doo dajee ku lay ñaan de. xoolal ma lii rek xoolal ma lii xool tubaab bi. te te te te te lii xam nga bu doon xam nga bu doon noor fa arba yoof. Sénégal fépp bi arrêt la. bu doon noor fa arba yoof. da ngay gis femme bu taxaw yor ñaari doom boot kenn naan ni di xaar di xaar kalaan naan ni Sénégal noo koy tekkee je m'en bats les couilles. <laughs> mais voilà. waaw. dafa da ngaa doxantu de. ma yow italien waaw ñëw na war a bàyyi ma bàyyi tox <laughs> man aw ma mel la barki bamba yow rek lañ am jom barke borom touba amuñu lu la ëpp amuñu lu la gën buumba dëgg lu mu metti metti may buuba yenn saa mu metti lool